waaw ah, sigil len sen wala jere ngeen jef man esa bay Fall la tudd biri ci ñun moy kep ak kick football rek kala ko daaxa moy biri ah, ci ñun moy suñ Maradona ci ñun moy suñ Messi ci ñun moy suñ Pelé ñun bañ juddoo biri lañ dégga di maga dégga biri man ma rakama dan anda kunyo oye aliou bada aliou badara ndjay of blessed memory yalla daf ko tela jël ci ndaw waye ñun ñoo aliou bada ñoo dan anda di def lepp together di play football man nak duma yaga ne ko supporta daan ah, yaga ndamo biri parce que ñun suñ référence ci football yépp moy biri Euh, bon nag tey dafa nekk stade pour ñun euh, dafa nekk stade de pour Gambia musuñoo am an icon as big as Biri pour ñun laa wax musuñoo am ay ay an icon musuñoo am a legend as big as Biri bon nag tey bés bu màgg la Ah, bon nak tay Gambie ñepp wara joy parce que ñak nañ nit ko maga ñak nañ ko xamne contribution am ci sports in this country is on so bon nak ma diko jale wa rew mi ñepp diko jale bepp Gambien Africans yep tam diko jale everybody connected with African football parce que ñun suñ sañé Biri mooy di biggest African footballer ever gis nañ ñoom George Weah liñ def ci football ñoom biiri defuñ ko waaye itam ñoom biiri ñoo xàlla yoon wi su du toon ñoom Biri goo ma ne ñooñu dinañ egg foofu ah bon nag wax dëggaanee yàlla ñu di ko massawu dëkk bi yëpp di ko massawu Gambie yëpp and thank you very much jërë